man maa ngi tudd Tabara Ñaa maa ngi dëkk quartier Kër Daago waaw ñu ngi sant monsieur le maire bu baax di sant suñu dëkkandoo yi di sant ñëpp wax dëgg yàlla tey wax sax mënuma ko waaye nag mënta ñàkk ñoo ngi sant suñu dëkkandoo yi di sant waa comité bi yëpp nag ñëpp ndax woote ñu wuy si la rek dafa neex te wax dëgg yàlla xale laa mais samay yaay samay tante ñëpp ñoo fi ñoo ñëw dama leen a woo si lu gàtt tey diiru gàtt laa leen woo ñu ñëw wuy si ma maa ngi leen sant du leen gërëm di ñaan lii ñuy commencé yàlla nañ ko commencé si bisimilahi rahmaani rahim eggale ko si alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant tonton Sankare yàlla dafa def nag suñu mag ngóoneloo moo ñu boole woon nag moom yàlla def bi ñu ngoonee loo boole moom tey sax nekku fi ndax moom dafa dem benn tukki bu gàtt rek mais waroon naa ñëw teew dëgg yàlla ñu nekkoon ci benn parti di liggéey. parti APR lañ nekkoon di liggéey yàlla def boobaak léegi parti boobu daal gisuñu si suñu bopp. gisuñu suñu bopp si parti ñu ngi àndoon ak Thierno Alassane Sall. waaw yàlla def nag ñu ñu ñuy liggéey foofu am suñu comité boobaak léegi daal gisuñu dara loo xam ne gis nañ suñu bopp ci parti bi yàlla def nag Ngoné Lo mi tey boole ñoo suñu maire bi Mamadou Lamine Sankaré yàggu ñëw wax dëgg yàlla nag lu ñu di yàgg li ñuy gisanteeg moom sax bëriwul mais nag li ñu gis ci moom daal doy nañu ñoo ngi sant bu baax di gërëm wax ji moom mënta kii sax. lan ngeen yaakaar ci parti réew mi. bi ah li ñu fi yaakaar rek mooy ñun ay jigéen lañ ay femmes de développement lañ dañoo bëgg daal ku nga xam ne moom moo ñuy jàppale. suñu gox bi di Kër Daago ndax wax dëgg yàlla Kër Daago moom am nañ fi ay problème yu baree baree bare am nañ problème mu ndox am nañ problème mu courant am nañ ay yeneen problème bu ñu jàppalee daal incha lépp lu mu bëgg kër daagu moom dinañ si kii taxaw incha allah ñoo maa ngi jéggal bu baax. mais yan ñoo waral nga jóg ngeen jóge ci Thierno Alassane Sall pour dem ci euh, Mamadou Lamine Sankharé mu nekk réew bi Mamadou déggoo li ñu la wax comme ça ni ko waxee rek tey jii dañoo am yaakaar ci moom dañ ñoo booleeg moom. tey wax dëgg yàlla ki ñu booleek moom yaakaar bu ñu lu ñu li ñu gis moom doy nañu moo tax ñu ñëw ci. suñu première politique daal mooy Thierno Alassane Sall bi mu fi ñëwee. ñu dem ko ñoom ndawal mu waxtaan ak ñun lam ñu waxoon lépp nag daanaka gisuñu dara. lan ah, moom daal lim ñu digoon daal bëri na. léegi nag bi ñu demee toog a toog a toog ba mu yàgg ah, kii mu tuddati. ngóone loo daal fi ñëw. waxtaan ak ñun yóbbu ñu si mbootaay bu nekk uh, fële. Mamadou Lamine Sankhare après mun a dinaa leen boole ak uh, monsieur le maire. pour mu ñëw fi jappalé leen ngeen liggéey ñu ne ko waaw ñun do bu ñëwé ñun am non benn groupement bo xamné mën na no woote ci koñ bi yépp te ku du wo inshallah allah di nga ñëw pour mu jappalé ñu daal ci suñu gox jappalé ñu ci suñu birit waaw parce que ñun ay jigéen rek lañu te kenn ku ci né ah, so sañon nga yëngu ci dara koñ bi moom manké na ndox mom waaw manké na ndox ak lampe yi ak li ci li fi lamp daal wul man mom naka jekk mom Thierno bamay and ak mom sama Idi la musa andal man ba mas Thierno Idi nga musa andal waaw man mom la musa andal mom parce que musuma watel kudul idi Idrissa Seck. nuyo bi ma ngi ci jital momon Lamine Sankhare mi nga xamni suñu leader le fep nak fuñ ko fekk ties yep moy suñu leader ñun kon moo tax dégg bi ñu ko dégg ñu fi indi te booba ba tey wax dëgg yàlla soxna ndawa day ñëw ci ñun di expliquer nañu dafa am loo xam ne lii Modou Lamine dina fi ñëw bu ñëwee dañuy waxtaan ma ne ko yu fi ñëwee nañu nañu ko wax parce que ñun ñoo ngi ci côté bale man daal awma ci lu may wax lu dul gërëmaate parce que rafetlu naa waxi xale yi ma ànd ak sama xarit ñu di ko wax man ummi si di waxi yi ñi ngi seen gannaaw lañu te dañ jiital fa tubaarakàllaa lu ñu wax rek ñoon la maa ngi nuyu Yacine Thiam ak ñi mu àndal maa ngi nuyal maa ngi nuyu ñëpp di fekk nuyu waa Kër Daago yëpp di leen sant di leen gërëm wasalaam. Kër Daago tey lan moo gën a fës ci seen i jafe-jafe ba tax ngeen bëgg a soobu ci politique bi maanaam ànd ak le maire Sankaré ci réew mi. dara neexu fi dara neexu fi dara. ndox amu fi courant bi amu fi amul sécurité dara loo xam ne lii mën nañ mën nañ cee gis suñu bopp ñun gisuñu ko fi moo tax ñoo ngi toog benn place bi ñu déggee nag Modou Lamine mi ngi fiy ñëw ah dañoo daal di tekkeekuwaat jóg xam nga ñun ay mag la ñu de lu ñu génn surtout que timis gi ñu génn am na lu tax kon nag fa la ñun daal ñoo ngi am daal yaakaar ci yéen te yàlla bu yàlla tas yaakaar. Faat Sow laa tudd Faat Law bi ni ñaan ci yàlla sama jéeg bi na yeggale ko ndax tubaar fa kàll bu wootee Sankharé fii ci koñ bii mën naa ne ndax Sankharé fii la nekk ci keeskaay gi nag te ba mu jàppee Idi ba tey bawul triché wul triché woo de dangaa jàpp rek te yàlla tax nuy ñaan ci yàlla yàlla na nga ci am ndam kon bu la sama jéeg bi wooyee ci koñ bii tubaar fa kàll kenn moomunu kenn juruñu kenn jënduñu dañuy ànd ak yow ba mu neex tubaar fa kàll masala fii la ku ne jaar na fi nga ñëw fi tey jii laaw la cat sànqare murit gaf kee ki ne sàmb ñoom ñee tubaar fa àll ak ñoom euh, Ousmane Gueye ñee ma gis la nga def ca ñoom ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen ak feneen nga jàppale leen kon sànqare boo dikkee ci sunu koñ bii bëgg fi du la dara du la fi ta koñ bii rek tout près am na doo def ak ñoom dégg nga kon laaw la cat sama jéeg bii moom ci rek lay dox ci lay yëngatu li ma ko ne da ngaa gisul ku la jàppale gisoo ko la koo àndal mu dimbali la waaye tubaar fa kàlla boo ko gisoon ba tey kon romb nga fii kon dañuy ñaan yàlla sa digganteeg moom yàlla boo ci amul réccu yàlla bu mu am sa digganteeg yow réccu yàlla na yàggale sunu sago kon sama jeeg bi nee na sànqare la àndal mu ànd ak Idrissa ñu gesti yem ci sama jeeg bi mooy sunu njiit laay leele laaw di sant yàlla di sant ñëpp di gërëm sama jigéen yi nga xam ne tey dañoo am yaakaar ci réew mi yaakaar ci man ba ñëw ndax parti bi ñu nekkoon APR la tudd digg yi ñu leen diggoon yëpp amul. parti boobu nag bañ ci nekkee ñoom dañ ci amoon yaakaar yaakaar nga yëpp dafa tas ndax parti boobu ku ne chef la ku ne ne kilifa di maay kilifa mais suñu paree ci yow élection pare na dootoo leen gis promesse li ñu la mën a digit soo ñu paree dootoo leen gis alors ba ñu demee toog lu ñuy waxaloon ñëw yëpp ça fait trois ans gisuñu dara. ci la nit ñi am femme bu ñuy wax ngóoleloo yawaleen ci man ñu ñëw ci man ba ñu dikkee it mu wax leen man réalisation yi ma def ak jigéen ñi nekk ci man ak yooyu wax leen li may dimbalee jigéen ñi ak ni may am préoccupation bu ma amoon ci nit ñi ndax man xeebu du ma xeeb kenn militant bi gën a tuuti sax tey su amoon xew lu mu xew mu a nekk naa déplacé ñëw wan ko ne bul yëg naa la wan ko ne kii nga àndal mi ngi ànd yow ci coono mi ngi ànd yoo ci bànneex mi ngi ci naqar te di sénégalais aussi Thiessois li ma gën a bëgg mooy kii ko yëg ku ko yëg alal alal mottaliwul dara mais nit ki quand na nga ko yëg bul ne rek tey soxla naa leen wooteel ngeen ma aju naa dootu leen ma gis wala tëj naa sama téléphone man sama téléphone du ma ko tëj ci àddina ñoom xam nañ ci dara ba 4 heures du matin soo ñëwee sama kër su ma nee sax dañ ma yéem a recevoir la parce que xaw ma luy sa soxla su ma ñëwee su ma lu ma ci mën a faj faj ko su ma lu ma wax wax ñëw ñu ne ko non mu ngi nelaw wala génn wala nangam nag mais xoolal yaakaar gu nga tas kooku quand même jullit moomu ko te ñu ko yàlla man je préfère dikk ne la lii laa am kat lañ ko bokk su ma mooy la ah muñal ma ba tel jour soo lu ma am ñu bokk ko au moins da nga xel mu dal delloog ne kii kat ki ma doon seet si gis naa ko xëy na yàlla moo dogalul mais ñun de responsable réew mi du ñu nëbbatu du ñu tëj suñu téléphone du ñu def lépp loo xam ne dana tuutil militant parce que tey xëy na fi ñu nekk yàlla moo ñu fa teg militant yi yàlla moo leen fa teg yàlla mooy seet rek parce que su amee ñu ànd il faut moo am ñu ne ci kaw am ñu ne ci suuf kooku nag mbiru yàlla la du question sama rëy rëy la du question sama maqaama la du question lenn xëy na looloo neex yàlla man it ma xam ne looloo neex yàlla ma xam ne ñii ma jiite gënuma leen ndax tey mënoon nañu maa jiite kon nag war naa leen jox cir bi war ba cër boobu dama koy joxe ba faw leneen li mooy ñoom am nañu yaakaar ci ñëw ànd ak yow ndax fële dañ leen doon dicté joxuñu leen nan nga leen fas yéene taxaw ñu jàppale leen. xam nga euh, depuis 2007 ñoom xam nañ ko jigéen ñi fi toog yëpp xam nañ ku ne dégg na sa turu sànqare à su ma amoon cent franc fexe ba bokk ak nit ñi au moins soixante quinze te ne vingt cinq yi dem sama njaboot man noonu lay fonctionner parce que dama ne man maa am un milliard denc ko li ko xool sama dëkkandoo bi xiif lekkul vraiment du ndam ci man dama sama sañoon su ma lekkee sama dëkkandoo bi lekk su ma amee un milliard séddu ko sama dëkkandoo yi ba am loo jàpp am un ko sa dëkkandoo xiif ngay añ sa dëkkandoo yaa ngi toog ak dooma añul mais kooku dimbale woo sa bopp dimbale woo sax euh, yàlla ndax yàlla dalaa dénk pour que ñii nga nekkal soo leen tànnee nga jàppale leen parce que man dama ne euh, sama principe mooy su ma tabaxee immeuble ak nombre de bâtiment yi ci mun a nekk nombre de chambre yi ci mën a nekk man benn néeg rek laa ci yàq lal ba benn lal la lal ba su ma ci tëddee sax maag sama jawar duñ ko fees man soo ma joxoon say ginaar mënu ma ko jeexal kon pourquoi may dajale 1 milliard ay 2 milliards sama dëkkandoo yi amuñu añ amuñu reer amuñu njëriñ man je préfère luma ma am bokkoog nit ñi ëllëg so fi joggé am ngërëmu nit ñi am ngërëmu yalla am way ci ginnam man lool moy sama principe ci non lay fonctionner alal jaraluma dara nit ñi ma gënal alal Sénégal ma gënal alal Thiès la ma gën a laal. jigéen ñi mën nañoo xaar ci yow. financement bu fekkee am na xam nañ ko lu ne xam nañ ko xaar ci man. lu weesu loolu koñ bi am na lëndam. am na jafe-jafe ndox. ngeen yor mairie. incha allah lan ngeen ci nar. dèjà inondation ñu ngi def euh, liñ ci mun dèjà même tey rek wàcce naa euh, avec le maire Cheikh Lo ay camion fële ca Mbambara pour ñu defar li gën a wóor mooy. sama tànk tubéy laa ci xar poto làmp yi moom dana dugg ci kër daago dana dugg daaru salaam dana dugg euh, extension kii ngent euh, extension yooyu yëpp dana fa dugg incha allah parce que sama programme la bokk incha allah poto bu njëkk a ñëw dañ ko dugg dëkk soxla wuñ ci dëkk bi dara xaaj xam luñ soxla suñuy paree suñu mandat ñu ne ñii liñ fi defoon kenn defu ko loolu lañ ci wut. parce que soo wutee xaalis sa poche def sa mandat ba mandat boo xam ne après les cinq ans nit ñi dañ lay jéppi jaru ko man je préfère nit ñi ne liñ fi def kenn defu ko man loolu mooy sama ndam te loolu mooy sama sacerdoce ci loolu laa